Cheikh bu Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la dalal si Rewmi FM ah, maa ngi leen di fay di leen ziar. ngay spécialiste en relations internationales fas yéene waxtaanee ca la xew ca Mali ñoom mhm. quarantaine jamono ji lañ mën a wax sax ni ci lañ nekk ndax sanction euh, CEDEAO yi nga gis ne am na ci politique diplomatique euh, mhm. tey ji euh, lan mooy enjeu yi waaw gis nga bépp problème dañ ko war di mettre dans son contexte mhm. li xew Mali te bu ñu rek mu agsi suñu kaw nii dafa commencé depuis printemps arabe yi ba ñu déstabiliser Libye OTAN moo ko déstabiliser par l'intermédiaire de la France et de la Grande-Bretagne. Mhm. ba ñu déstabiliser Libye Kadhafi nag arme yooyu dafa dugg si Sahel bi bi gannaaw yi arme yi duggee Sahel bi nag laal dëkk yu bëri. Mhm. Amadou la doon wax ni bu ñu defarul Libye Mali dina déstabiliser wu depuis lors dañoo gis Mali succession de coup d'état ba ñu agsi tey ci Assimi Goïta mi nag. Assimi Goïta nag bi mu ñëwee ba toog moom au pouvoir bi mu defaatee beneen coup d'état boobu ba ñëw toog au pouvoir dafa gis ni mu ne lii kat il faut ñu jug ci jug ci mooy lan ñu jël ay cinq ans wala ñu jël diir bu yàgg ñun peuple malien bi ñu toog defaraat suñu dëkk xool suñuy objectif ak tànnaat suñuy partenaire ngir suñu dëkk jëm kanam. Mm-hmm. léegi gannaaw ba Assimi Goïta waxee loolu nag ay dëkk yu mel ni CEDEAO mooy maanaam Sénégal ak d'autres pays. jug daje euh, si benn rencontre ñu déet Assimi Goïta ñun kat ren euh, processus démocratique bi lañ bëgg égalité e-, kooku da leen ñaan ni leen may leen ma ay at ci ay diir ma jéem bi ñu xool nan la ñu mën a liggéey ensemble tout bord nag. Euh, ak communauté internationale bi day ñëw société civile bi ñëw parti politique yi ñu xool nan la ñuy tegee benn ay at yoo xam ne mën nañ defar Mali ba maanaam waxu déstabilisation dootu fi am mhm. ndax Mali la fa xew bokkul ak la xew yeneen réew yi ndax dañoo gis ni euh, ay indépendantiste dañ fa am ñu gis ni tamit euh, jihadistes yi dañ fa bëri loolu nekk fa ba nangu woon ay dëkk yu bëri ba si la barkaat ñëwee ak d'autres interventions militaires yoo permettre ñu xaw a indi stabilité foofu mhm. mais Maliens yi dem ba gis ni fa nekkee ba tey Hmm? Mhm. maanaam amul benn changement bu fa am. Mhm. maanaam may nañ leen presque huit ans yoo xam ne dara baaxu fa dara changé wu fa gis nañ ni attaque terroriste yi mooy continuer mais kooku ne ah léegi nag il faut ñu diversifier suñuy partenaires jëli Russie jëli mhm. Chine jëli Corée jëli keneen. ñooñu ñëw jàppale ñu xeex terroriste yi gannaaw ba Assimi Goïta nag ni loolu lay def am ay dëkk jug mer ñii ni bis bu partenaire bi wàccee ci dëkk bi dañ lay sanctionné dañ lay bàyyi mhm. léegi nag te dañoo seetlu fan yi nag bi depuis bi ñu partenaire russe yooyu rek dëkk yu yu mel Union européenne quelques pays Union européenne jël ay sanctions dóor contre Mali mhm. comme si Union européenne moom moo Mali moom moo war a tànnal Mali ay partenaire am loolu dafa di gàcce bu gën a bon ci dëkk mooy loolu mhm. droit international moom yow état tu es de t'associer avec n'importe quel autre état. Mhm. pour jëmale si dëkk kanam. Mhm. amul benn état bu lay tànnal état bu war a nekk sa partenaire. léegi nag ba Maliens yi toogee def loolu ni commencé def loolu rek ñu gis sommet extraordinaire ñu daje Ghana. ay pays africains ne ñoom jël nañ ay sanctions yu métti teg ci kaw Mali <laughs> léegi nag sanctions yu métti yooyu ñu gis si ni fermeture des frontières la ay sanctions économiques sanctions diplomatiques mais sanctions yooyu ñu gis tamit dinañ gis ni am na benn parti boo xam ne xëy na mën na bañ a dox hmm. parce que fermeture des frontières gis nañ ni Mauritanie du fermer ay frontières am ah, waxagu ko officiellement hmm. Algérie du ko def dëkk yooyu mën nañ continuer seen transactions yi doon ñoo ngi fa yàgg balaa ñoo wax ci frontières yi monsieur Ndiaye comme ni nga ko waxee mm-hmm. tout à l'heure Union européenne mm-hmm. daal sanctionné Mali. tey union européenne du CEDEAO ndax CEDEAO intérêt yi mu am maanaam ci mhm. proximité géographique bokkul ak yu Europe am ak Mali tey ñan ñoo mhm. ciy gën a gaañule ndax Sénégal bokk ci Sénégal man sama xalaat bu gàtt mën na si gën a gaañule mhm. mais parce que Sénégal li muy transité ak Mali benn état fii du ko def mais Sénégal yaakaar naa ni gouvernement au président Macky Sall am nañ intelligence boo xam ne dinañ jouer avec tact avec la la junte malienne maanaam bañ a appliquer ces sanctions être cent pour cent sinon am problème économique déjà contexte Covid 19 bi nekk mhm. monde bi économiquement dafa am problème bu fi bu bu crise économique bu fi am donc euh, Sénégal yaakaar naa ne bis bu naree appliquer sanction yooyu dëgg la Mali am lu ko metti de mhm. Mali dina am problème économiquement mais boobaa ñun tamit dinañ ci laal répercussions yi dinañu sonal ndax corridor bi am diggante Dakar Bamako li fay transiter ci alal war na def ay milliards et des milliards et des milliards de francs CFA donc Sénégal warul xoole ay dëkk yoo xam ne jegewuñu Mali sax ay frontières ñoo xam ne bu ñu sanctionné Mali fermer seen ay euh, frontières aériennes lu ci mel ni euh, France ni mu def tey ñooñu loolu amul benn impact si ñoom te ñun loolu bis bu ñu ko defee dina am impact suñu économie te actuellement dañ nekk si jamono joo xam ne tamit sama bopp ma la gënal du bañ naa la du ñu toog di topp Union européenne si ay sanctions ak France alors que ñooñu c'est des pays extrêmement riches te ñun dañu di dëkk yoo xam ne dañoo ndóol amuñu dara. Mm-hmm. amuñu takkuñu donc dañoo war de telle sorte que dañu war a ba que ba de sanction yooyu xëy na euh, du laal peuple malien ñoom bu ñu doon sanctionné mënoon nañ sanctionné dirigeant malien yi mm. par exemple ñu indexé ay tel tel dirigeant mm. ñi ñii sanctionné nañ leen amatuñu droit voyager suñu ñëw suñu dëkk amatuñu droit dem fii dem fële mais déedéet dañ leen sanctionné yàqal leen pratiquement bëgg leen yàqal seen économie te loolu yaakaar naa ni peuple malien bi war na mobiliser wu jàppale vraiment askanam jàppale dëkkam mais tamit pays CEDEAO yi nañu defaat ndànk xam ni problème du xeex moo koy résoudre. du mm-hmm. ay sanctions problème diisoo la ak waxtaan ndax dañ toll àdduna boo xam ne léegi ñëpp a yeewu. Mm-hmm. dañ toll àdduna boo xam ne dëkk bu ndaw amatul dëkk yëpp ay dëkk yu mag lañ. te Mali histoire bi mu am ak suñu dëkk yi empire du Mali buñ ko fàttalikoo buñ fàttalikoo ah, ñëw ba euh, fédération du Mali ah, ñoom Modibo Keïta Senghor relation yi Mali yàgg ak Sénégal donc yaakaar naa ni ñun Sénégal du ñu dem di topp intérêt yoo xam ne intérêt yu ñu nar a yàqal la mais au contraire dañuy jéem a defar diggante yi. ndax gisoo ne tamit ci mbirum diggante googu maanaam wàllum diplomatie ñagas-ñagas dina ci euh, fii lay jaar daal di wéy ba faw. waaw ñagas-ñagas nag xëy na dina ci am ndax euh, vraiment euh, Sénégal ak Mali. comme bu ñu jëlee événement wu fédération du Mali problème yi amoon ñagas ñagas amoon na sax mais après mujj nañ juboo mhm. mujj nañ juboo toog waxtaan autour d'une table lii moo tax ma ni début problème bi xëy na ñagas ñagas dina si am ndax autorité malienne yi du ñu comprendre position peut-être Sénégal mhm. ak lien yi ñu yàgg am de fraternité mhm. mais gëm naa ni du yàgg ndax comme je le disais tantôt président Macky Sall il est assez intelligent assez outillé xam na ni Mali nekkul dëkk boo xam ne dëkk bu dëkku maanaam dëkk la boo xam ne da ngay tëb tëb noonu rek indi problème ak moom ndax relation yi ñu am ak Mali déjà rek man bu ma waxul sax waxu relation problème boobu am Mali. Mhm. Sénégal il va de son intérêt Sénégal bak bokk si ñu régler bi am Mali ndax lépp lu laal Mali ëllëg dina laal Sénégal. Mhm. gis nga géopolitiquement suñu dëkk yi dañoo lié. Mhm. intérêt wu Mali mooy intérêt wu Sénégal intérêt wu Sénégal mooy intérêt wu Mali mooy bu Guinée ñun dañu lié lié boo xam ne dëgg des fois damay dégg sax sénégalais di wax naan xëy na dëkk bi ñu ñoo ko gën a avancé wala nooy déet. suñu dëkk yi ñun ñëpp ñoo bokk mm-hmm. benn lañ mm-hmm. amuñu benn différence buñ naan infrastructure kii moo gën a baax lekkale teewul on reste des pays pauvres mm-hmm. des pays du sud donc waruñu ñun ñuy sanctionné wante suñu biir ñun dañoo waroon sax kenn ku jug pour sanctionner suñu dëkk ñu jug dal sa ni la déedéet waaw ni la amoo droit def lii ndax ñun mën nañ trouver terrain d'entente suñu biir donc lay Europe nekkul Afrique moo tax euh, j'en appelle au président Macky Sall mu def si ay démarches moom ak ministre des affaires étrangères ay Aïssata Tall Sall ñu def si démarches yoo xam ne xëy na dinañ rapproché waat parti yi parce que lii kat jëmul kër fu ay africains yoo xam ne ndóol lañ def di sanctionné ay dëkk bu ndóol loolu moom yaakaaruma ni mën nañu jëmal kanam. tamit euh, xeexu terrorisme bi euh, tey ni ñu embargoé Mali nii ndax du am njeexital ci xeex gi. waaw ni ñu embargoé Mali nii dina sonal Mali ci ci xeex bi ndax gis nañ ni. Euh, force étrangère yu bëri ñoo ngi menacé na dañuy quitté Mali. Mhm. mais gis nañ Mali tamit daf si profité woon diversifier par ay partenaires am ku mel ni Russie ak d' pays yoo xam ne promet nañ ko ay aide pour jàppale ko par rapport à la formation waaw donc yooyu yëpp sax xëy na li tax euh, occidentaux yi mere Mali si la bokk mais man dama ni mais dañu ni l' état à la compétence de ses compétences. Mhm. dëkk état bu ne nguur gu ne am nga droit tànn say partenaires. Mhm. loolu relation internationale moo la ko may am nga droit tànn say partenaire kii mooy sama pa mais Sénégal nañ fàttaliku ab Ablaye Wade bi muy toog toog ci gi mais Taïwan suñu partenaire la woon. Mhm. mais Ablaye Wade dafa toog xool ni Chine mooy partenaire bi ñu Mm-hmm. donc loolooy wuy loolooy les états n'ont pas d'amis les états n'ont que des mm-hmm. ndax gis-gisu Ablaye Wade ci àdduna ñëpp xam nañ ni visionnaire la borom xam-xam la mais a Assimi Goïta loolu rek la def dafa toog gis ni moom soutien bi mu war a am euh, doyul daal pour résoudre problème bi ne par France comme que sama partenaire nga yow tamit comme que partenaire xaar leen ma dem jëli Russie mm-hmm. mais ñooñu ñëpp dañoo waroon kontaan sax dajaloo loolu mais déedéet. dëkk boobu taxaw ni Mali man maa lay tànnal say partenaire loolu fu mu am amul fenn amul fenn. ci transition bi ndax gis nga ne Mali euh, ñoom euh, li ñu teg ci taabal bi ne diir googu la ñu mën a am pour def ko. ndax jàpp nga ne lu ye lu yelloo maanaa la. waaw diir googu am na ñu ne yelloo na am na ñu ne yelloowul maana mais mooy man li may wax rek dama ni la xew Mali bokkul ak la xew Sénégal bokkul ak la xew Mauritanie nii Guinée wala feneen Mali dafa di dëkk boo xam ne survie wu état bi lañ menacé. Mali bu ñu moytuwul bu ñu jéemul defar Mali defar defar fa transition boo xam dina boole wax dëkk bi territoire yi doo daat benn bu bu bu ñu moytuwul dañ nar a assister euh, création des états te loolu Maliens yi duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg te Maliens yi si seen bopp président ta si boppam xam na ñan ñoo nekk ci ginnaaw loolu dafa dem ba découvrir xam ni am na ñoo xam ne seen intérêt mooy nord bi def sécession ñoom Mali bi génn ñaari Mali am te parce que xam na ni nord bi dafa bëri pétrole bëri uranium bëri gaz te dafa am ay multinationales yoo xam ne ñoom jamono jii ñoo ngi dox ci loolu. Mhm. mais nag moom ba mu demee ba loolu mu ne déedéet du nii nag nañ ñu may diir boo xam ne dañ mën a boole parti yëpp ñu waxtaan ndax président naa kii du ma wax ak euh, opposition du euh, moom danaan chaque jour il faut ñuy toog di discuter ak ñoom des fois dañ koy gis day dem ci noor bi seeti ñi ñi dox dugg dugg si dëkk yi waxtaan a nit ñi ngir dajale peuple malien bi ñu booloowaat former un état. mais Modibo Keita waxoon naka ne woon na man dàq naa noonu Mali yi ñu génn Mali mais lenn leer na ma dinañ jaar si suuf dem jëli ay doomu Mali ngir déstabiliser Mali te actuellement loolu la Assimi Goïta comprendre moo ta il est nécessaire que actuellement ñu may Maliens yi temps temps bi nag ñoom ñooy déterminer c'est au peuple malien de choisir bu nee cinq ans la cinq ans la bu nee deux ans la deux ans la peuple malien bi daal si man ñoom ñoo indépendant ñoom ñoo ñoom ñoo a tànn li leen bay pour ñu mën a defar seen dëkk. du Mali rek nekk ci situation bi Guinée tamit. Mm-hmm. gis nga ne euh, militaire yee ko yor ak Tchad tamit waaye dafa mel ni euh, traitement bi Tchad am wute naag bu Mali ak bu Guinée. waaw mooy li ni mel. moo def ñu ne France dafa waroon toogee nday ji gis nañ Mali la fa xew. Euh, France dafa condamné ni damay lii waaye damay sanctionné mais Tchad dañoo rey Idriss Déby. mais ñu gis le président français première institution France déplacé wu daw ñëw Diamena installé doomu Idriss Déby mhm. donc loolu loolu ça ça ça ça ça mérite des des interrogations donc ñun ñoo ngi doon xaar France ni man je réclame des élections démocratiques mais déedéet France waxul lool dafa ni moom dafa bëgg maintenir la stabilité mhm. stabilité au détriment de quoi parce que plus simplement nee nañ Tchad day intervenir si Sahel bi Tchad dafa am puissance militaire te loolu yëpp dëgg la Tchad am am na armée yu dëgg dëkk bu war a am processus démocratique dañ ko war a ne mhm. eh, teg leen suñu processus démocratique ñu dem ay élection ku mën sama morom duma mhm. mais ñoom defuñu woon loolu donc ñoom daal communauté internationale bi dem nañ ba gis ni kon ñoom seen intérêt eh, début fiis moo leen arrangé ñu maintenir ko au pouvoir ah Mali Goïta arrangé wu leen ndax Goïta dafa bëgg defar un état fort un état basé sur les valeurs maliennes et africaines mhm. ñu ne kii nag donc arrangé wu suñuy intérêt ndax suñuy donc loolu rek moo lal diggante bi nekk instant yi di daw au niveau africain gis nañ Guinée tamit euh, euh, Guinée euh, bi coup d'état bi amee mhm. mais malgré sanctions yi CEDEAO brandi mais jeune guinéen bi gis nañ leen dañoo jël sanctions yi sànni fële mhm. ñoom réagir wuñu ba tey ndax lenn occidentaux yi boo seetloo seen réaction bëriwul ndax ñoom dafa am minerai bu ñuy jëlee Guinée bu tudd bauxite te minerai boobu dafa am doole ci àdduna bi bu ñu xoolee ba jant guinéen bi tëj ñoom boobaa dañuy am ay problème moo tax ñoom ñëpp kenn nanguwu ci wax ci domaine boobu donc bu wan leen ni leen deux poids deux mesures dafa am donc pour wan leen ni leen yi ñun ñoo war a avec un peu de recul comprendre ce qui se passe dans cette sous-région là jëlal suñu responsabilité bopp doxal suñu dëkk yi suñu bopp bu ñu amee problème suñu biir ñu wootante toog day mel na Abdou Diouf ba mu amee woon problème ak Mauritanie événement yi fi naa woon am. Mhm. mais Abdou Diouf tuutee des mu déclaré woon guerre pourtant euh, Mauritanie. Mhm. mais dafa toog xalaat xam ni loolu du intérêt wu Sénégal muy xeex dëkk boo xam ne mbokkam la. te gisoon nañ ni Mauritanie am na dëkk bu mag bu ko armé woon joxoon ko ay missile ay armes yoo xam ne waroon na bombarder dëkk yu mel ni Saint-Louis ak dans d'autres pays j'en passe hmm. mais teewul Abdou Diouf dañ dafa toog ànd ak xelam ak xalaatam xam ni géopolitiquement xam ni diplomatiquement loolu amul intérêt amul sens Sénégal ak Mauritanie di entrer en guerre hmm. pour en revenir à notre cas rek pour wan la ni la donc il nous faut des dirigeants intelligents je ne parle pas de grands parce que askan boo koy jiite day am fooy toll foo xam ne day laaj ñu am xam-xam. Mhm. xam manier géopolitique bi xam sous-région bi nan ngay mën a waxtaanee nan ngay mën a tombé d'accord ak nit ñi Abdoulaye Wade force boobu la amoon Abdoulaye Wade dafa mënoon négocier ñoo ngi fàttaliku Dadis Camara bi mu egsi au pouvoir Abdoulaye Wade dafa jël tànk daalam dem fekk fa pouvoir bi waxtaan ak mhm. ko dalal wan ka dëkk nga yor ay nit ngay jiite da leen di respecté ba ainsi de suite gis nañ li fa mujjee am donc bu ma la ni la rek il faut savoir jouer avec tact te ñun am nañ yaakaar si président Macky Sall gëm nañ ne dina dox ay tànku jàmm yoo xam ne diggante Mali ak pays dëkk yi ko wër ba jàmm ju wéy dina fi ñëwaat. Cheikh Sadibou Ndiaye ñu lay jaajëfal bu baax a baax. Ah, merci.